خطمي وزيمانو وزيم زمانو الخطمي والبتر بتر البربوط jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf mbokk yi ñu ngi ànd ak ki nga xam ne nag moom mooy di ki nga xam ne moo xam si bopp fi muy jaar ak fi mu jógee soxna si gindi ñu li nga xam ne mooy préparation Korité bi nga xam ne jigéen ñi dañ koo préparé ren incha allah pour defar loo xam ne oyof te seen poos du bënn benn yoon. da <laughs> di nelaw. yeewu leen boog. si bopp na réew mi yéen xanaa neex. léegi man damay laaj. Mhm. bu rose bi ak bu bi lan mooy njëriñam. défrisage bu rose bi ak bu bi lan mooy njëriñam très rapidement. bu bi. waaw dafa baax pour karaw bu dëgër. pour karaw bu dëgër. bu rose bi nag. waaw dafa baax pour karaw bu fin. ah très te nag dafa baax ci famille. ah pour famille la famille ko tax a jog pour njaboot la pour njaboot bi mais soxna si. fixateur bu ñuul bi ak fixateur bu weex bii soxna Yaxara lan mooy seen njëriñ ci boppu jigéen. aka bari <laughs> te baax ah. seen njariñ mooy ah. coiffure de cérémonie ah. coiffure sa kër wala defaral sa doom sax boo ko defee invisible la doo gis saraan mhm. bu jaune bii nga xam ne daa taaru gis ci cheveux lan mooy njëriñam <laughs> raxas sa karaw ba mu set wicc du fa bàyyi lenn lu ah. lay déranger. ba pare day guddal karam. léegi démalant bu roos bii lan mooy njëriñam soxna Yaxara. <laughs> kenn sànneetul greffage wala mu réer la wala mu pañe mu të. bi. Ah. baax boo waaw nooyal. waaw éclat. très bien soxna Yaxara. juddu nekk dernier cri bi lan mooy njëriñam soxna Yaxara. mani très bien mu téye dama ne l'écran bi nga xam ne dafa am meew buy dem ci cere am l'écran vanille bii nga xam ne aromatisé la lan mooy njëriñam njëriñam mooy lan. damaa xees lu ko waral. lii. l'écran aromatisé. l'écran aromatisé bii. caramel. caramel bii nga yor de. yor teint vanille. yor teint fraise. ma ba pare nag baax ci xale baax ci mag. vitamine D. kenn waxatul loolu. baax ci madaar bii nga xam ne mooy économique lan mooy njëriñam ci kër gi. dama ne la. waaw xam ne dañuy tilimal. waaw madaar bi waaw kenn sonnatu. kenn sonnatu. sotti sa paan. Mhm. fete allah léegi. madaar liquide bii laa bëgg a xam soxna yaxara lan mooy njëriñam. njëriñam a bari. mooy lan. madaar liquide bii. waaw waaw waaw. dañuy teel a raxas suñuy ndab ba mu set tegal. ma ne jet tool bii nga xam ne soo ko sottee ci ndox day mel ne meew di génne bépp coono boo xam ne dafa nekk sa yaram waaye boo daggee rapidement day arrêté deret ba pare faj ko lan mooy njëriñam. bari. ci li waaw. dafa bari waaw. non seulement day faj waaw mais dafa baax ci ruq-ruq douche. xet gu neex xet gu neex macha allah macha allah ci vacances ah. ndax nawet a ngi ñëw nawet a ngi <laughs> bien dama ne. ki nga xam ne dafa bëgg parfum te yërëm amul parfum cuuraay madaar bi ànd ak baxur lu njëriñam. ak bari. xeeñ nga ma de. démb moom laa fóote yére bi <laughs> moo taxit yaa ngi xeeñ xunaan moom laay fóote chaque fuur ma siy fuur bëgguma sumb bu dagg benn yoon. <laughs> ki <laughs> day fuur léegi soxna si. Mhm. da wax benn wax bu am solo léegi. nee nga bi nga commencé laal lii. da bëgg am gaaw am jëkkër. waaw kon amagoo borom kër. amaguma tàllal sa loxo ñu ngi ci ban weer. koor ñu ngi ci koor. mu tombé mois de juin. tey di la 6 juin. balaa la 6 juillet yàlla la may borom kër. tàllal nga fa naan ziimaanu. zaamaanu. wuuni. baani. baani balal. balal batar. butur. ضريحة لروض القطب ذات أبو الفيض الإلهي أبو العباس أبو العباس أبو العباس am nañu mbégte ak contentement bu mag mbokk yi ànd ak seen émission Kouthia Show di gërëm na caractérisation ba di alaaji Maawo Cissé feggoog ki nga xam ne moom mooy euh, soxna Fatima Evans assistante waaye tamit euh, son ba euh, ingénieur bu mag bii di Aziz Soumaré moom moo ko yor ñu jàkkaarloog caméraman bu ñu naan sëñ Jili benn jëmm ñaari caméra ñu koy fës ci liggéey bu rafet bi nga xam ne amal nañ ko mbokk yi nee nañ balaa ñuy tàmbali suñu émission dañuy nuyoo ñi nga xam ne ñooy kilifa dina nekk ci réew mi di leen ndokkale ci weeru koor bi nga xam ne moom lañ dugg sur l'égide et la bénédiction de tous les khalifes généraux de ñu ngi koy ñaanal fan bu gudd ak wér di ko ziar waaye tamit di ziar sëñ Mbaye Sy Mansour xalif général euh, des Tidiane Serigne Cheikh Jëmb Fall xalif général euh, de Baye Fall di nuyu tamit Serigne Abdoulaye Thiaw Laye xalif général des Layène di ziar tamit Euh, Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Niass xalif bu Medina Baye Serigne Cheikh Tidiane Seck xalif bu Thiénaba waaye tamit di ziyaare Serigne Maam bu Mouhamed Kounta xalif général des Khadres di nuyu tamit bu baax ki nga xam ne mooy Thierno Bachir Tall xalif Omar Yeni Cheikh Ahmed Tidiane xalifa euh, Niass xalifa bu Léona Niass ñu ngi koy ziyaar ak Chérif Bourama Aydara xalif bu Nimzat Serigne Mouhamed Lamine Ngom Thiapal Cheikh Ahmed Tidiane Ba xalif bu Medina Gounass Dakar ba ñu ngi koy ziyaar ak Serigne Youssoufa Mbaye euh, xalif bu Maam Cheikh Mbaye ci Louga ziyaar nañ ko Serigne Mansour Ciss di xalif général bu Euh, Pire ñu ngi koy ziar ak ki nga xam ne rek moom mooy euh, Serigne euh, ab maam Abdou Dramé xalif bu Ndande ziar nañ ko di ziar tamit Serigne maam Abdou Cissé xalif bu Jamal Thierno Madani Tall xalif bu Thierno Mountaga Tall ak njabootu Cheikh Moussa Camara ak Cheikh Moussa Cissé Ndiambé borom daaru dëkk ca Passy ak njabootu Serigne Munu Muniru Jigéen xalif bu njabootu Serigne Amadou Baro Jigéen ñëpp ñu ngi leen di ziar waaye ci di suñu bàyyi bopp di Alaaji Samba Ndiaye nekk président des imams de Ziguinchor président des enseignants arabes bu représentant le xalif général des Tidiane ca Ziguinchor depuis 1975 di waaliyu Kaamil ñu ngi koy ñaanal fan bu gudd wér gu yaram di dem di ziar suñu bàyyi bopp di Serigne Abo Mbacke xalif bu Serigne Fallou Mbacke ak ki nga xam ne mooy Serigne Fallou Mbacke docteur nekk nag euh, ca Italie ak jëriñ Mouhamadou Sène euh, Moustapha Sène ñu ngi koy ziar alaaji Cerno Sama Sama Morabi sama bàyyi la ma nga ca Fouta alaaji Cerno Abdourahmane Bari waaliyu Kaamil nekk ca ak Cerno Hamdou Wan Bari ziar nañ ko ak Cerno Alpha Ah, Bokar Alpha Ba ca war a fonde di ko ñaanal fan bu gudd ak wér gërëm Cerno Mamadou Hadama Gaye nekk ca ñànk adi waali waa Kaamin la alaaji Mamadou Gaye nekk ca Mbour Tefes ak alaaji Ousmane Ndiaye waaliyu Kaamin ak soxnam Ajaratu Mam Bosa Cissé ñu leen di ñaanal fan bu gudd ak wér gu Waadaan démb la woon ñaar fukki fan yi nga xam ne ci lañuy defal màggalu Waadaan bi di ci ziar ñi nga xam ne ñoo di aja ratu ak mbay ak awakara demoon fa toogal ñu fa nag ci kanamu sëñ bi ñu leen di ziar di leen ndokkale ci teewaay boobu nga xam ne teewal nañ ko sëriñ Euh, euh, Seydou Sow sopp sëñ Fallou dëkk ca Passy ñu ngi koy ñaanal fan bu gërëm wér yaram ak sëriñ Habib Gueye mu wax na mu sëñ Mansour si rabi taala anhu sëriñ Abdou Karim Mbacke nekk ca Ndindi ak Modou Fuleur ca kër ga ziar nañ di ziar nag ñu yaakaar ci euh, yoonu Yesu Christa borom bu sell bi yal na ko yàlla la ñaanal tamit fan bu gërëm wér yaram ndax ñooñu suñu ay bàyyi nañu di nuyu tamit maître Fatima Fall responsable politique nekk ca Ndar di marraine équipe Kouthia Show ziar nañ ko ak sama papa bopp sëriñ Mansour Youssouf Sarr chef religieux dëkk ca Budi ak suñu yaay Adja si bu Serigne Cheikh Ahmed Tidiane si almaxtum bi ñuy jooy ba tey noppi wuñu yal na ko yàlla xara ca àjjana gën a kawe Serigne Babacar Abdoul Aziz si ne ca Tiwaawan yal nañ ko yàlla euh, ko ak imam ratib bu Banjul di Alaaji Cerno Aliou Maska nekk ca Banjul suñu bàyyi la daf ñuy woo di ñu yedd di ñu ñaanal ñu ngi koy ñaanal fan bu gudd a yaram ak sama yaay Ajaratu Daaru Siise nekk ca kër ga ñuy nuyu tamit Alaaji Ibrahima Mbay euh, nekk foofu nag Euh, ca Banjul xalilulaa di euh, di ak soxnam ajatu Fatou Mbaye ca Banjul sama bàyyi bopp di alaaji Ala Mbaye bëgg mbaxal moom nag nee naa ko alaaji Ala Mbaye bëgg mbaxal weeru koor gi dañuy yem ci alaaji Ala Mbaye rek ndax boo ci taxee bëgg mbaxal sa xel dem ci mbaxal wax dëgg yàlla loolu day nekk lu doy waar moom nag maa ngi koy wax ma nga ree ñu koy ñaana fan bu gudd ak wér gu yaram Serigne Gora Seye serviteur de l'islam la Pape Amad Ndiaye borom baatu wurus bi tey nodd ci jumaa sëñ Babacar Sy sa xel bu neewoon si julli sax da nga dem julli ndax baat bu neex ñu koy ñaanal yàlla dëgëral baatam may ko fan bu gudd ak wér sama bàyyi bopp di alaaji Cerno Baaba Nuuru li xalif bu daare xale bi ñu koy ñaanal fan bu gudd wér gu yaram ak alaaji Mamadou Sall xalif bu diwis xa yàlla defal ko jàmm ziyaara tamit alaaji Karim Ba Dimba Jaabi Gasama yàlla ko yàlla yokkal leeram yu gën a kawe ca àjjana ya ñu ngi koy nuyu moom te kii nga xam ne nag moom mooy doom ja di imam Xaasum Jaabi nekk ca dëkk bu ñaan Kanjolon waaye imam Moustapha Sall président du forum euh, africain ñu ngi koy nuyu ak suñu yaay di soxna Ayda Si nekk ca Tiwaawan yàlla ko yàlla defal jàmm mbokk yi kilifa diine yii yal na leen yàlla sàmm ci réew mi may leen fan bu gudd ak wér yaram ñi nga xam ne tudd nañ leen ak ñi tuddul ñëpp yal na yaan bi tasaaro seen kaw ñi nga xam ne ñoo fi wuutu yàlla xare leen ci àjjana gën a kawe ndax nit day am kilifa te nee naa leen kilifa diine yii bu fekkee ne yàlla suñu borom rus na leen ñun ñu daw làq seen ginnaaw billaay yàlla dinañu yër bàyyi ñu jàll waaye fekk nag jiitaloo leen yaakaar sa bopp rek boo demee nekk def ko tu njaaxum ni man bu la yàlla jàppee dana leen dulli ndulli yoo xam ne boo amul wéeruwaay di nga dem sàmm leen fi bàyyi leen fan bu gudd ak wér gu ñu ñu wuutu nag yàlla xam leen ci àjjana gën a na yàlla defal jàmm léegi nag mbokk yi xam nga fu ñu jëm dañuy wooyi lax luux moom mi nga xam ne borom xam-xam bi àndandoo Abu Bilal ci leeral ci jaar-jaar Abu Bilal xasa jamila jamila jamila xasa jamila jamila way xasa ويخزا جميلة ويخزا جميلة خزا جميلة ويخزا جميلة وزك المالك أنت بارك له ما شاء الله ما شاء الله وأتالي كم لوك أنا كلا وزينك كلمتهن وأنا سأقول لك أنت زينك كلمته أنا أكيد وزينك لا كم كلمتهن زي ولك اليهما أنت لما كلمته زي كلمته على وزينك كمان كلمتهن زي أنا أنك يوم ميزانك شارك لنا ولا هلك البالي من ما لا فشلنا انا ما تنك حنا وزي ما تكلم ناكس انا كل وزنك البطر بطر وزنك البطر هاكنا انت وزعنا البطر بطر بطر بطر بطر البندا بندا بندا بندا بندا بندا البطر بطر بطر بطر بطر بطر بندا بندا واي واي بندا بندا بندا bandak bandak bandak bandak ali bandak ali putar putar putar putar putar putar waay waay bandak bandak bandak ali putar putar putar putar putar putar putar laxalu laxalu luuge laxalu luuge luuge ولك الماشا لا ولك الماشا لا وزلك الدركاسنك الملالة أنت أنت بارك ولك الدركاس وش عليك وانا الدركاس الله وكذا ولك بارك mbokk yi ñu jàll ci li nga xam ne mooy waxtaanu koor ci yor-yoru koor waxtaanu koor ci yor-yoru koor. su ko defee ñi wax ki nga xam ne moom mooy Aziz Soumaré ingénieur bi mu cofal ñu umu kalsum bi nank rek mu toq suñu nopp mu nekk li nga xam ne moom mooy doon liy tàggeeg suñu bopp ci jëm ci li nga xam ne mooy yaram bu neex laxlu ma nga dëkk ci dëkk ba nga xam ne moom mooy ca Israël ca Jérusalem ginnaaw xur bi nga xam ne mooy dem ca mer Rouge romb Afghanistan ca Bareel ba nga xam ne mooy Kazakhstan ndax xur la boo xam ne fa nga xam ne fa la yéefar ya nekkoon ca yoon bi nga xam ne dañu doon teg mbir ya wasakal malakal ba أيوة أيوة أيوة أيوة آه. إذا أوزوه مكان اسمه كزوي آه. بين كزوي إلى مكان اسمه إسرائيل بدل إسرائيل هنا أوزوه قول الناس هنا الجمل هنا الخريف هنا كسر الناس وزروا ايوه ايوه ايوه هذا هو استاذ ابو بلال nee na ma xamal leen loo xam ne sénégalais yi xamuñu ko ci man te yéen a may xool di ma xeeb nee na est-ce que xam nga ne balaa doomu aadama yi ñëw di jébbalu ci man fas ci boppam moo njëkk sukk ci man nee na fas ci boppam moo njëkk jébbalu ci man nee na lu sax fas jébbalu ci man dañoo ñëw yéefar yi nga ne ñoom la bu xaaba yi yónnoon njabootu batar batar ak barbuut nee naa leen barbuut ak batar batar ñoo bokk benn yaay waaye bokkuñu baay ñuy war li nga xam ne moo yeefoor ya yéefari ne bu ñu gisee Abu Bilal dañuy tàggale bopp beeg baat bi ndax diine l'islam bi Abu Bilal bëgg dugal fii nga xam ne mooy Afghanistan duñu ko nangu wërsëg waaw ala abu badan batan eh. wala abu al butal uusno abu bilal hasa sénégali anas isa yobul sénégali anas anta la tanamuna kala abu bilal al yawma huwa yawma jami la kullu di ana abu bilal ana huwa sénégali anas ana ana wa huna yawma dama ne eh, eh. ba buur bi waxee na ku jàpp Abu Bilal dañuy tàkkale bopp beeg baat bi ba pare dina jël taawam bu jigéen ñu naan ko Layla may la ko moom buur bi bi mu joxee li nga xam ne mooy devoir bi avis de recherche yi commencé gendarme yeeg policiers yi ñëpp dugg ci àll bi ñu taal àll bi yaakaar na maa ngi ci àll bi ndekete maa ngi ci benn xoox xooxu mango laa nekk ci biir xooxu mango bi ba ñu taalee garabu mango bi xoox bi daal day wicceexu ma dugg ci fasu buur bi الرئيس جميلا الرئيس جميلا قال رئيس هنا قال رئيس هنا هذا ابو بلال هذا ابو بلال انتم نعرف ابو بلال انا انا ذهبتنا الى السنغاليه اسم كان اسمه دكار كل الناس يقول ابو بلال ابو بلال ولكن هذا ابو بلال ايه ايه bi buur bi taxawee ne ana abou bilal ñu ne gis ñu ko ndekete boobu fas bi nga xam ne moom la buur bi yéegoon fas bi ci boppam ibbi na ñaari tànkam ma daa dee jaar ci digg bi moom ci boppam li koy daaneel mooy xam na li ma wax dafa sori eh bi fas bi ñëwee bu ma ñaayi fas bi ñaari ñaari tànkam ma daa dee dugg ci biir fas bi wasakal baana albatar albatar Ali Poutan Poutan Poutan Ali Banda Ali Poutan Ali Banda Ali Banda eh wasakal baana wuuna aywa aywa aywa kaalal batal batal abu bilal anta la takrahuna iza uzru makan azal kura makan hona aza manarasu makan hona eh nee na buur bi ci boppam jékki-jékki gis fas bi diis mu daa dee xool fas bi ndekete maa ngi ci biiru fas bi Eh, am na koo xam ne nam tamit yàllay maye borom xam-xam la waaye gëmul yoon bii nga xam ne mooy yoonu diine ne buur bi mënoon naa mun a ko fas bi am na doxalin bi muy doxee du noonu nañu rey fas bi ndax yaakaar nañ ne Abu Bilal ngi ci fas bi ma xam ne eh, li waa ji wax am na maa ngi ci biiru fas bi ma ne fas bi ci olof na ko fas mun a naam ma ne ko gaawal gaaw génne ma balaa ñu lay rey reyaale ma fas bi làkk ma ci arab مبالك الماء وسونك البوق مبالك ايوه قالوا لنا البطل بود سنغالي يا ناس لماذا انتم سنغالي يا ناس لا يبرم بلال لماذا انتم تلميذ لا يبرم بلال لماذا انتم بنت لا يبرم بلال لماذا انتم رجل لا يبرم بلال انا انقول انا يبرم ايه ايه ايه bi fas bi taxawee nag xam nga lu ma mujj doon fas bi dafa génne làmminam tuflit ma nekk ab tuflit seey ci tànk buur bi buur bi daa dee wiccax yaakaar ne tuflit bi da koy taxal ndekete moom mooy may wiccax ma dugg ci buur biir buur bi ma duggee ci biiru néegi buur bi fekk jabaru buur bi teg ay wurus yoo xam ne buñ ko jaayoon tey àdduna ku nekk mën ngaa séddoo am milliard ma daa dee jël sama loxo teg ko ci wurus bi ne eh wurus mu ne naam mooy or. رئيسهن بنت جميلة هن bu leen daanu xare Badar fekke naa ko xare Badar fekke naa ko man maa fekkee xare Badar bi nga xamee ne yéefar yi ñëw nañ pour attaquer dama ne eh moo taxit Ousmane ku ma daf maa bëgg Ousmane benn saaba bu mag ba. Ousmane ak Babacar Ismaïla ñoom Ibrahima ñoom ñëpp daal di may dar na ma ee eh, kaay attaayal ñu sénégalais yi ñu ngi dem Makka waaye xamuñu ne man dañ may ziar ci benn pot foofu pot ba ma doon jëlee di attaaya boo demee Makka boo ko laajtewul duñ la ko wax secret la soo ne ana poto abu bilal bi mooy pot bi nga xam ne moom laa doon jëlee ndox mi di ko attaaye wasakal baana anta laarakal baana baanakal muuni wa hmm. bu fekkee am na ku ne ci bi wala ligne bi wala ligne yow dugal. allo salaamaaleykum maaleykum salaam. kooka la Oustaz Abou Bilal. Oustaz Abou bi taxaw ak Oustaz Abou Bilal nuyu naa la. fay naa la bu baax wasakal baanake. Oustaz Abou de dama damay togg nii miswinaar. ngay togg. waaw waaw wasakal léegi sa togg ñun suñu yoon lu mu ci. ah ma ne. waaw Oustaz toggal ñu xool. dama jënd dama jënd sama mbote bu ndaw. mbote bu ndaw baale wakal baale. <laughs> waaw baale wakal koy. Oustaz Abou Bilal gis nga bi ma jëlee sama mbote bi waaw damaa xotti biir bi Ousakal oh, nekkal lépp loo xam ne moo fa rek. mooy mbaq ya ca mariné samay sobleek. waaw samay moutarde ak sama lépp samay ingrédients. bu teewee. daal di koy dugal ci biir ñaw ba mu baax. di koy diw sama ba mu niin dugal ko ci frigo bi. def lem ba mu neex. Hmm? Oustaz Aw Bilal. waaw. da ngay lekk nen. dañuy lekk nen kay. wasa kër yi. saafara bi la. waaw. bañ nga pomme de terre. wuy waaw da nga ko saafara da nga koy baxal. lépp def naa ko nag ci misuy bi. Hmm, ak lan. maa ngi nii yekk ko sama bool. Hmm. maa ngi nii nekk ko si yéen a ñëw léegi léegi dina yekk bi dama la indil ba bis nga yàq bi. damay indi lekk bi foofu leen yow laa koy indi. TFM nga koy indi. waaw. musagal baana wala wul kaana musagal baana wala wul waaw nga ne waaw. ma ñëwee. alkal alkal baana. yaa ngi ñëw waaw. da koy na tedd ci sa loxo. waaw nga koy teg sama loxo musagal baana. xal ma ko Oustaz Modou Fall ma ca Italie. Modou Fall nga xam ne ku mu waar nga waaru. moom laa bëgg nga joxal ma ko yegg. wazakkal ëllëkkal moo di. yaa ngi may soxna si. waaw soxna si xam nga ñaari yoon ngi nii démb dugg nga wax tey nga duggaat wax. boo amee yàq boo yónnee dama ne boo amee yàq boo yónnee nga jox ko yi. ñun duñu ay déglu soo amee yàq boo yónnee jox ko JP yi. oustaz Modou Fall gënuñoo am xam-xam. oustaz Modou Fall gënumaa jàng. dama ne léegi koy wax ji day jeex sax benn yoon xam nga lu jeexal wax ji dama ne eh waaw yow wax day jeex déglu ma ma ne génn sama ligne wax ji dañ jeexal gis nga léegi seetutuma ci dara bi may wax dafa da déglu bu weesoo njabootu maam Cheikh Ibra Fall rek rek kese képp ku sant Fall xam ku sant Fall bu weesoo sama yaay bi sant Fall ku sant Fall dem Italie wori ku tudd Moodu dem Italie wari kuy Moodu Moodu nekk Italie wari nga ku xam Moodu Faal ak ay mbokkam wari nga kuy déglu Moodu Faal ak ay waaranteem wari nga ku xam ku sant Faal bu dul njabootu Cheikh Ibra Faal ak sama yaay bi sant Faal wari nga ku xam moo ku xam duu ku xam faa ku xam laa yooyu ñëpp ànd ngeen wari sëriñ oustaz Moodu Faal nag moo waxuma la wari waaye xiifal na boole koog wari ak njabootam ak mbokkam ak ñi ko xam ak ñi ko héberger ko ko may visa fa muy waaraate ñoom ñëpp wari nañu ak ñi koy woo naan ko wari nga ñoom ñëpp wari nañu ak waa Italie ñoom ñëpp waa Brescia waa Milan waa Venise waa Bourg-Jourdain waa Louga Moodu Moodu Faatu Faatu ambulant immigré visa Schengen consulat ambassadeur yéen ñëpp wori ngeen waaye kan mooy Modou Fall daf ñoo gën a bëgg lu neex wa zakal baanakal baanakal mi na wa mu na ne alaki xam lu mu yaakaar dama koo bloqué pour moom yàq bi dafa ñëw dañuy xuloo ni dégluwul wasakal ma baanakal bii na newul anta rabikal maana salwal kene أنت ربك المسجد مسلك مسلك ونكل باما منكم بارا بارا كذا بارا نكا بارا نكا مسي بارا نكا مسي arab mun arab mun nay tàngal waaye du xeex arab mun nay tàngal waaye du xeex xuloo nuñu ba suñu yaram yi tàng waaye ñëw maa dóor kon mbokk yi ñu ngi ci waxtaanu koor ci yor-yoru koor bu fekkee am na ku ne ci ligne bi wala ligne bi wala ligne bul dugg allo allo waaw salaamaaleykum maaleykum salaam wa jëkkal waaw kaay man la yaa Baba Sarr wala kan baax na nga ne yow la man la yaa Baba Sarr. yaa Baba Sarr. waaw yaa Baba Sarr lay déglu. man daal oustaz dama am problème. luy sa problème. dafa am benn waay bu ma doon génnal yàgg nañu. waaw. waa ji dig ma takk ma dem yëgal sama mbokk yëpp yëgal sama xarit yëpp. waaw. <coughs> mu dem ba dernier moment ne takkatuma. lu tax loolu. da ngaa ñaaw. déedéet damaa rafet oustaz. waaw kon lu tax takkatu la. lii daal la ma def oustaz ma bëggoon nga dimbale ma. ci waa ji nan la tudd ak nu mu sant. Ah? nan la tudd waaji ji. Pape Ba. Pape Doudou Ba fan la dëkk ci dakaar maa ngi dëkk Front de Terre. laa fan la dëkk ci dakaar Pape Doudou mu ngi dëkk Parcelles. Ba. وزك البال أن ترك الكلشانة والكنبة أيوة بنا أسلك المناكة. soxna si. naam oustaz. bi mu lay wax ne takkuma la mbaa dafa fekk nga woor dafa fekk ma woor oustaz waaye dama tiit ba dog. da ngaa dog. damaa tiit ñaata fan nga woor ci koor gi. or naa ñaar fukki fan oustaz. kon yooyu yëpp nga woor moom bés boobu rek nga dog. bés boobu laa tiit ba naan ndox oustaz. waa ñi sant ba nag ñoom ñooy ñan. ñi sant ba ci réew mi laa bëgg xam ñooy ñan. bu fekkee ni sant ba dama ne bu fekkee ni sant ba dañoo yaakaar na ñoom lu leen neex lu leen def ñu baleñ ci ndax ba. moo tax ñu yaakaar ne lu leen neex ñu def ñu baleñ ci tey nañ ciy dugg nag képp ku sant ba dama ne defee nànk bu nekkul ci njabootu Bamba Saxu Ba Bamba Njaxu Ba bu nekkul ci njabootu Bamba Njaxu Ba billaahi képp ku sant ba man maa ko wax jàppal na tey la sa korite wari rawatina nag dëgg muy wuri ba di aali ba di momar ba di demba ba di kee baa ba ñoom ñëpp rawatina ministre bi nga xam ne mooy Amadou Ba dëkk Parcelles Assainies ki ko fal moom Amadou Ba patron bi nga xam ne moo ko fal moom ki nga xam ne mooy patron fal dama ne moom ci boppam président Macky Sall ci boppam ak Amadou Ba ñoom ñaar ñëpp wooy nañ képp ku dëkk Parcelles ngay Modou Lo Demba Laa Demba Baat Modou Ba laa yamale ñoom ñëpp Modou ak papam ak yaayam ñëpp war entraîneur am sœur am yeeg seen waa kër bu dee doole la ñëwal fii dama ne ku képp ku xam ku sant ba wari nga sa jëkkër sant ba sa xarit sant ba nga den na ku sant ba sa wari nga ngay liggéeyee foo xam ne dafa am baa sax wari nga jeex na jeex na dama ne wasakal bàyyi la kenn mu nekkal la lan la pourquoi ñu tas yaakaaram ba muy tiit bay dox ñu sant ba dañ yaakaar ne mun nañ ba nit ñi rek ñu ngi leen topp bu la bàyyee nga bako ndax bala sant bu la bàyyee nga dem santal dem ba dem rek bu ñu kenn rey Amadou Ba wari na am njabootam mbokkam watanaka Amadou Ba la senda ko zakal wonne watanaka Amadou Ba Amadou Ba wecci bu fekkee am na ku ne ci bi wara ligne bi bul dugg xaaral alo allo allo allo. allo Oustaz Babou Bilal. waaw ñu koo kan la. man la Yaxara. Yaxara mbaa yaa ngi ci jàmm. Yaxara yara yara. waaw Oustaz man daal dama amoon soxla. Yaxara yara nga ne luy sa problème. man daal la jëkkër. waaw. ah ci koor gi ngay ut jëkkër yow. billaay oustaz jëkkër rek laa bëgg. mës ngaa am jëkkër wara mës ngaa am. mës naa am ñeenti jëkkër oustaz. waaw ana ñu. oustaz daw nañu. lu tax ñuy daw xanaa doo nit. oustaz. sama jog ma rek. wasa kël ba lu la jaaxal wala kël ba na kël ah. oustaz dama njool ba ci kaw am yaram def dangaa njool ba ca kaw am yaram def taaru waaw su ma la doon natt yaag Yékini kan moo sut war a yaag Tyson ku sut ñoo tolloo yéen a tollo ñuulaayu kaaba nga yor war a ñuulaayu këriñ ñuulaayu kaaba gi laa yor dama ne ndax sa bakkan mel na ne wangu picc mel na ko kay ustaas ndax say bët xotteeku na ni koo ni aka xotteeku ustaas am nga ay lex am na ay lex. mel na nga ko am ay ndomba ba takk seen te takkoo seen. waaw oustaz. ku la xool boo rombee dina yëg ne jigéen ay romb. billahi oustaz. am nga ay supporter ñu lay supporter booy fubali. waaw waaw. yaa ngi koy takk yaa ngi koy takk. waaw. yaa ngi koy yëg. maa ngi koy dama ne musoo nampal. déedéet oustaz. dara jugewul ci yow. déedéet oustaz. am nga watar. am naa watar ustaz am nga watatu. am naa nga waabutu. lépp la am ustaz ma ngay normal bi. am. lu la tere am jëkkër xanaa yow jënd nga. waa sëkkal baax na man Oustaz yow laa bëgg baa nga utal ma. dama ne kaay yow ki ma ngi nii wala bëgg nga. waa sëkkal may la ma may la laxu. ma may la lax luux départ ñëw léegi may ma ko ñëwal jël lax luux waa sa kel baax coupeel ñëw jël lax luux waa sa kel baax oustaz maa ngi nii di ñëw coupeel jël lax luux waa sa kel baax maa ngi coupeel jël si la yow coupeel bay ñëw jël lax luux waa sa kel baax waa sa kel baax wuunu pikin baax yëmbal yëmbal yëmbal yëmbal yëmbal yëmbal yëmbal yëmbal yëmbal kër wa leel yooyu yëmbali yëmbal yëmbal yëmbal yëmbal kër masaar wakan pikin wakan pikin wakan pikin wakan pikin wakan pikin wala wallahi wallahi anta lino zay wana ñu dem jàpp tuuti waajal waxtu bi soog a ñëwaat ci li nga xam ne mooy waxtaanu ko waaye sa kalma la nu sele ma ni kana ki sey ma kala kala ba kala mu baba na ki sey ana saw wala kala kala kala asala kala wa yusrid nafsi man si bopp moo ñu indi nga xam ne mooy xeetu baax baax yi ni leen ko yaxara waxee léegi nag benn bu nekk am na ci njëriñ jëmee ko ci démêlant ci shampoing ci li nga xam ne mooy fixateur waaye madaar bi nga xam ne mooy fixé kër gi mu set wicc ak li nga xam ne mooy l'écran jetol numéro un club Madaar yi nag ñuy commencé di yokk ci biir monsieur Niang sama xarit nekk ca Madaar ñu ngi lay xamal ne am na association des femmes yoo xam ne dañu créé club Madaar ñoom seen bopp dañuy natt ma nga ca caaro yëmbal ñoom Sali Soumaré ñoo ko taxawal ak les grandes dames de valeur ca HLM ay club Madaar yoo xam ne dañuy jënd ay natt maanaam Madaar di ko jënd ci euh, omo di ko jënd ci liquide di ko jënd ci euh, jetol di ko nattal jigéen ñi ñu koy yab loolu nag nee nañu dafa tax ñoom seen bopp ñuy dimbali seen borom kër yi ci euh, njëgu dépense bi wa jëkkal bële léegi nag sama benn yaay bu ñu naan ay Aïssata saw nekk Kër Massar ñu naan ko maire Kouthia maire bi daa bëgg-bëgg Kouthia ba nga xam ne moom nee na bu sojee sax Kouthia lay seetaan wér di ay sata Sow ñu naan ko maire Kouthia sànq bi may seet dédicace yi moom moo ma réeroon Danzo ñu ngi lay nuyu di la ñaanal fan bu gudd ak gu yaram kooku maire Kouthia la maire bu baax la waaye faatu Dieng ñu naan ko ñangtaa nekk ci ca Italie Brescia kooku sama tipoob la di yaayu ndeer bu ndaw moom ca boppam ma ngay liggéey benn restaurant bu mag bu ñu naan Lamp Fall nekk ca Brescia gis nga Lamp Fall bii ca Brescia ku ñu Ndooy Malick Maram Ndooy moom ci boppam mooy responsable ku sopp ku caana wasa Kelbaane ak Momar Gambien ak Matel Fall di doomu ndeyu ñangtaa ñangtaa nag moom mooy Faatu Jeng waaye tamit di nuyu Kumba Taal ak ki nga xam ne mooy yaa jaban yaa jaban nag moo yor cabine ba maanaam togg yu neex wasa Kelbaane moo ko yor kin Kiné Chéri laay nekk ci Espagne ñoom ñëpp nag ah, eh, am na koo xam ne moo ko fàttoon tey day xaru mooy Mbirika Mbirika Thiam moom dafa naroon jaaree noon rek eh, wa sa kël Mbirika Thiam wala kel ba ne la yow la wala kël ba Mbirika Thiam waaw seen kël nuyu ko nuyu ko Mbirika Thiam wala ko seen waaw Mbirika Thiam yaa ma yóbbanti woon ne da nga nopp lax luux lax luux nangu na waaye faatu Niang Dieng bii di ñan ñangtaa borom Brescia di xol bu rafet di ne di saalum saalum bu mat ñu ngi koy ñaanal fan bu gën a wér gu yaram yaayu ndeer bu ndaw dana ko yàlla defal jàmm ak waa restaurant Lamp Fall yëpp clients yooyu yëpp ñu ngi leen di la daara international internat euh, alhamdulilah ñoom en collaboration avec Oration doomu banlieue et euh, waa Fobéré gi nekk ca yëmbal benn barak suba incha allah daara yi nekk foofu yëpp dañ leen di fas yéene euh, jox ay ndogu en face atelier tailleur bi nga xam ne mooy Baye à côté du centre Galle population benn barag yëpp ñu ngi leen di invité invité bi nag Kouthia euh, moom la moom ci boppam dana bokk ci joxe ndogu suba incha allah le 7 juin yal na ci jàmm ba egg ci Papito mu Serigne Saliou depuis yëmbal oration am nga ko mën a wax ku tudd Baye Modou Mène Diop moom tamit ñu ngi koy nuyu waaw doomu Alaaji Daam Diop Mansour ñu ngi koy ziare xam naa war war waaw ku foog mbaa dugal na ci loxom dina ci dugal loxam sa suukar si dafa war a saf sàpp ak li xam ne mooy kii bi ñii nag benn benn suñu soppee la Ndeye Dimet Ndaw journaliste de Sen TV kooku dafa yóbbante ci yow daf ñoo bëgg il nous adore il nous yàlla ko yàlla defal jàmm defal jàmm patron ndax ku baax la waaw yàlla ko yàlla defal jàmm waaye waa RTS ñoom Abi Ndeye euh, Abi Dieye technicien à la RTS ñoom Maman Cissé ñoom Mam Fama Cissé ñoom Adama Cissé les jumeaux ak Awa Cissé ñoom ñëpp de la part de leur maman Abi euh, Dieye Cissé à la cité Mourtada 2 ci Védène bi ak Abi Diallo ak maman Fatou pharmacie euh, ñoom ñëpp ñu ñuy seetaan mais nag dañu am dañu am conférence bu am solo mooy conférence bi nga xam ne ñoom Marianne Ndiaye technicienne à la RTS ñoom Kouma Ndiaye Kati ak Astou et toute la famille Ndiaye à la SICAP Liberté 3 ñu ngi leen di nuyu. Euh, conférence RTS femme RTS wala waaye tamit lay la xadri jeudi le 7. incha allah à la esplanade de mairie Parcelles Assainies unité 17 Serigne euh, Khadim Niang borom def gis moo ci woote wa sëkkal maa nekkal baale ñuy nuyu yaayam bu baax di soxna Maguette Waar yal na ko yàlla may fan bu gën a góor gërëm dëgëral taxawaayam allah mbokk yi dañuy nuyu bébé bi nga xam ne moom mooy bébé Anita euh, tey bébé Anita sax sanguwul ndax yaayam gi soog a ñëw Aminta waaw kay ñu ngi koy nuyu moom Anita ak personnel waa Mar maternité yëpp. ñoom démb seen taxawaay rafet na bitu bi nekk Liberté 5 ñoom Fatou Bintou Niang ñoom Rosine Tendeng Pascaline Mendy Ndumbe Diawo bitu bi nekk ca Almadi Augustine Limon ak Jàmmalaay Thiaw bitu bi nekk ca Sicap Foire Aca Ken Mendy ak Aïssata Thiam ak Solange euh, Solange Niang Anta Thiam nag moo fi ñëwoon démb fu mu ne ne xale baa ngi nii yëngal na dëkk bi kiñ ko njëkkoon tudd nag ma ngay daanu crise fu dee mu fay dem Serigne Serigne Mansour Sarr benn bu guddi moom ma ñaan ne ma def ko mu tuddee ko Asi Anita ma ne ko Asi Anita sëñ bi ndax tubaab du tudd aasi dañoo xam te soxna aasi moom boo ko déggee xamal na si nga ciy dégg waa la kooku dañ koy utal doomu tubaab bu ñuul kooku yaa may dégg aasi nangul doolu yàlla waaw ani anita la tudd jeex na kii bébé anita la kenn mënut koo dindi aasi gëmal yàlla wasakal baanaka llah ay waay waay waay ngeen xam ngeen xam ngeen li muy wax ni batar batar putar puturee lu batar batar ak putar putar xam ngeen ne tar nañu bokk batar batar putar putar ñoo bokk benn baay baay nañu bokk waaye bokkuñu yaay bokkuñu yaay de xam nga seen baay moo bàyyeekoon dëkk bu ñu naan wasakal batar batar putar alakal batar karkar kurastar kurastar kurastar moo jur bu fekkee am na ku ne ci bi wara ligne bi wara ligne xaaral allo maaleykum salaam maa ngi am jàmm kooku Ami Diop na nga def yaa ngi ci jàmm waaw ngi ci jàmm waaw lu lay laaj yow nañuy déglu Ami Diop sa jëkkër taximaan la kumba na nga def yaa ngi dugg marché wara waaw waaw ñu ngi lay dégg waaw sa borom kër taximaan la xaritu Kouthia yi waaw sa jëkkër taximaan la dafa am ku fàtte maal ci taxem bool waaw bool waaw ah bool bi dañ cee bind turu aw bilaal boolu neen la bool kese lu ci nekk soosu monsieur ak lan am na ginaar ci biir وذاك البول ونك التاكسي بانك البنك الكرن وانك المال هارك انا مو انديكو انديكو تي اف ام waaw gendarmerie caare nga yóbbu bool bi ah kon danañ ko jot alhamdulilah ba mu doxee ci loxo gendarme dinañ ko jot. danañ ko jot waaw. wasakal waaw bool bi waaw mu ngi ñëw. waaw. waaw. wala kan ra commencé raxasu wala waaw ñëwal ñëw leen fii la TFM waaw ana bool bi. waaw da nga déglu rajo bi waaw. waaw kay gendarme kay ñoom macha sécurité alimentaire ak personne physique ñoo ci aay. gendarme yi di bi boole di lekk lan. taxi taxi defal nànk gendarmerie Thiaroye ñoo ibbi bool bi di lekk ndog bi am nga loolu ci leer waaw yow kay def sa jaan wàcc na coupeel coupeel rek coupeel e <laughs> dama ne bu leen neexee émission bi tey lay doon dernière émission billahi gëm naa ne émission bi tey lay doon dama ne émission bi tey lay doon dernière émission Macky Sall yow laay waxal dama ne eh, déglu ma c'est le chef suprême des armées des forces de de de président Macky Sall nel benn Macky Sall ci boppam moom ci boppam moom ci boppam laay njëkk porte plainte benn avant ma koy plainte na jàpp ne day yàq taam rek wari na ak gouvernement wari nañu ña ko votaloon ñëpp ànd ak ñoom 65 pour cent yi wari nañu amul Youssou Ndour fekkee ma ci boole lekk ma ci boole ñoom ñëpp wari nañu. ñaareel bi képp kuy gendarme ngay policier ngay pénitencier wala ngay agent simple bu ASP yéen ñëpp war ngeen gendarmerie caaroy nag képp ku dëkk caaroy sax ci boppam nga xam ne sa yoon jotewu la ak gendarmerie bi jàppal ne wari nga amin te soxla nga may xool bëtu caaroy laa dëkk yéen waa caaroy ginnaaw raay ak kanamu raay ak booru raay bàyyi foo de jaxate sama sëriñ ñoom ñëpp wari nañu jabaru gendarme xaritu gendarme doomu gendarme colonel commandant lieutenant caporal caserne militaire policier pompier militaire douanier gendarme pénitencier militaire jabaru gendarme doomu gendarme gelu gendarme buñ koy waaj a takk policier bu jigéen policier bu góor wari nañu seen mbokk yi wari seen xarit yi wari caserne wari pompier wari militaire wari président wari ministre de l'intérieur wari ñëpp wari ñoom ñëpp ànd wari ay wor kot bu ñu waroo ñoom ñëpp wari nañu ma ñëw ma ñëw képp ku mës a wax ak gendarme sax wari nga nga mës a wax gendarme dégg ngeen wax ji gendarme nga boo ne ne ndarm ku xam sax ku tudd Jean wari nga tàndarma nga xam ne dafa am ndar ku dëkk ndar sax ci biir gendarme xam nga da naan naan gendarme gendarme wari nga nga sol lu bëla ni tëdd gendarme wari nga ku juddu 4 avril jour indépendance wari nga ku jàkkaarloo camp militaire wari nga bleu noir la dafa am verte bokkul ak ñoom kon wax lu wasakal baana alakal li jasalakal walay ala walay walay walay والله لا نتكلم لغة بها والله لغة إنجليزية والله قال أبو بلال والله إذا كان أنتم إلى أبو بلال والله هذا أبو بلال واو bu fekkee am na ne ci ligne bi wala ligne bi wala ligne yaa ngi may rey dugal maaleykum salaam waa mel na maa ngi de koy wax nice noonu dama sa morom ba nga naa ma nice yow yaba yabaate woo yow. waaye yow kii xamadiwul yow ya wasakal bàyyi la ka yaa koy yëg wala nga ne. kan mooy Bilzo. booy fii do émission rab de kan mooy Nigoto. eh fi du émission rab de yaa ngi ci émission diina nga naan rab وزكال بيلكل والنالك وطريقة زلك ولكن وخلم وزكال بيل أنت بريك لك الإنسان السلام عليكم أنت تتكلم بالعربية؟ ألو ألو ألو أنا مو أنا مو بوي بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل xam naa nag ñàkkul sama benn taalibe ko fekk muy wax téléphone mu ngàdd ko mbéj c'est très bien dañuy reewantu ay boy yu ndaw nekk ci rajo yi di woote naan ay xoomalan ah loolu qu'est-ce que ça veut ay magam jëmm nekk ci rajo ngay wax nga naan ay booy waaw eh, bisaan na nga def ça va yal na la yàlla defal jàmm am na tur yoo xam ne wax dëgg yàlla koor sax di ko woo baaxul ndax mbisaan dafa jege bisaab mbii mbii non mbi saan waaw mbi saan saan men mbi waaw wasakal baalakal walakal kal baatakal wasala laka ñu ngi koy nuyu moom suñu soppe la ñu naan ko faatu Dieng ñangta di nuyu tamit bu baax may mun a fay anniversaire am bi démb ña nga na neex na trop lekk nañ ba suur naan ba màndi heure ndogu yaatal ñëpp daal dee bég yal na ko yàlla defal jàmm wax dëgg yàlla sa xarit la sa soppe la nee na daal wax dëgg yàlla bëgg ci moom moom Mounass tey yal na ko yàlla defal jàmm. wala kala wala kala wala. Eh, na naar bu tàppet naar bu tàppet dégg ngeen wax ji arab boo xam ne danga nga ñëw am ku la dig ay dóor nga ñëw di ko wax sa papa nan la koy waxee nga xam ne naar a bëri sutura arab a bëri sutura am na ku ko dig ab dóor ci mbedd mi. mu ñëw di ko wax diw ne ko dafa am ku ma war a dóor nee na bu ma génnee mu dóor ma xoolal xale bi bu ñëwee ni mu ko waxee xala ma woon la xale baa ngay ñëw papa jàngee eh, wa zalikal wa zalikal wa zalikal wa zalikal وزدك بشهن وزين وذلك المل مل مل مل مل وذلك المل لترك وذلك وذلك وذلك المل وزنك كردهن وزين أنا كلهن كبانك المل وزنك ولي من أزنك كانك مزالك أم نكون جلين بي ورا لين بي أيدا جونغ دوغل maaleykum salaam. waaw. ñu ngi lay fay di la sant waaw jërëjëf. waaw. yow noo tudd sëñ bi ak fooy wootee. Abu Taraykas. ah kii nga soxla wa zakal bàyyi ne Abu Taraykas la nekk. Ah, Abu Taraykas asalaamaaleykum. asalaamaaleykum. alhamdulillah bu tirikaat alhamdulillah alhamdulillah كيف الحال؟ الحمد لله أنا في هنا سنغالي الناس وجد xaritam la nee na أخي أخي أخي nee na mbokk nee na mbokkam la أنا أبو الأخل أنت تعرف أنا؟ أنت لا أنت تعرف أنا لماذا أنت تتكلم هنا؟ أنت لا تعرف أنا أنت لا تشيء مثل هذا لكن دعني لما كان بسكتني 원산에 가라 하니 원산에 가라 하니 왔다니 가라니 원산에 달로 나오지 간 가라 좀 나오지 돼 왔다니 가라 하니 원산에 가면 가는 가면 가는 거지 يا هم الشاي مزنك مسكن kel maane waa sëñ maa ngi dégg naa histoire bi yëpp lan la nan la demee waaw nan la demee wakkal wakkal wakkal maa ngi lay dégg maa ngi lay dégg maa ngi lay man la waaw waaw kii coupel coupel coupel ma rek la ko coupel ma la ko coupel wasa kalbaanakal wala ka tarakal wala yow jigéen ji waxoon ne sax dala bëgg moom ci boppam maa ngi koy sénnee mu ñëw waaye bu ñëwee ñu rek la sa problème baatakal wala wala ka sali kala téléphone wala kala ka nakal baane xajal leen ko ana ndaw ndaw si ana ndaw ay sa gaaw maaleykum salaam ak seen gaaw maaleykum salaam naka def man nga doon woo waaw yaa woote woon ne da nga bëgg borom kër ah yow li nga waxoon yëpp mu ngi ci yow njool nga ca kaw yaatu ci suuf Eh, macha allah yàlla bu la cat dugg lax luux ngi ni lu attan nga. attan nga kii xool nga ko bu baax xool ko tournel soxna si macha allah tur wala sa kal weeru koor kala kal baani doy na bëgg nga bii ñeme nga ko moom tam est-ce que danga koy nattu lu waral. Ah, nattu ko. toogal nii ma xool non toogal toogal ndax atta si kenn wëtte ndax eh, attan ko ndax atta eh, melal ne melal ne baax rek wasa kan la ala kan la gaawal gaawal waxtu baa ñuy dab ala kan kaay toog fii toogal nànk xool ndax attan na la ok attan la wasa na la <laughs> na la nee na doo dara attan na la kay kaay kaay gaawal gaawal gaawal ma xool ndax attan na la ah ki attan na la. doo dara kaay kaay ma xool la attan na gaaw gaaw leen gaaw nee na nee na yéen nee na dara. soxna si bu ma xamoon doo ñëw. comme ko bari goo fi jaar mu attan ko ak suma fel demal yow kaay gaaw yow de soxna sax ngay ñëw ndax ah mun ngaa tuuti bëri nag dangar de. ah, ah na doo dara soxna si kaay nga xool kaay kaay kaay gaaw waxtu bi dañoo dab kaay xanaa kii nag xanaa. kii xanaa attan ko ah, kay natt ko ma xam. nee na yow tey dootoo ko toogati nee na yow tey ngay dee toogal <laughs> wasa kat bisimilah ayca wakat na dee na na dee riij riij ko riij ko batar ko batar ko tas ko mabal ko mabal ko riit ko mu dee. kaa leen leen toog ci kaw na dee toog leen na dee toog leen ci toog leen ci kaw toogal ci kaw.